di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen ah comme ni ngeen koy amee rek ci revue de l'arène bi maanaam jàngatu yëglekaay yi balaa ñoo sori naa leen bàyyi kon tey di 18 avril 2023 ngeen dem seetaan te déglu yëglekaay yi li ñu ñoo indil ñu dikkaat. bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 18 avril 2023 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi xëy ko dore sunu làmb yëglikaay bi tey xëtam mu njëkk la xëy gën ci fës moom moo di Balla Gaye numéro 2 le lion de Guédiawaye l'adversaire de Eumeu Sène yëglikaay bi nag ñëw na ci combat bi nga xam ne le 30 juillet insha allahu rabbi ci atum 2023 mii nu nekk la fas yéenee am yëglikaay bi di sunu làmb daal la mu xëy xamle nee na Balla Gaye numéro 2 moom ay mbir a ngi nii yoo xam ne nii moo war a tax nag ngir mu daan Eumeu Sène bokk na ci bu bëggee dégg-dégg yoo xam ne ni yëglikaay bi lim na ko waxut sax revanche yi nga xam ne nii war na koo jëlal boppam ci Eumeu Sène ndax ku ne xam ne ne Eumeu da koo daan deux fois te Balla bërki démboo Njaay defet bi mujj am Pekin la ko jële ci rakki Eumeu Sène muy Boy Niang ak yeneen mbir yoo xam ne ni laxasu na ca te itam ku ne xam ne ne Balla Gaye numéro 2 la mbir mi da koo soxla kon nag ngir mu rebondiraat nekkaat ca kaw daan Eumeu seen moom du mën a ñàkk ci moom su bëggee bokkaat en cent pour cent du samay wax nag sunu làmb moo xëy ñëw wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni moom ci ndam la toog ba tax mu jëlaat beneen combat moo di Zarko yëglikaay bi na Diène Kairé nag la jël waaye Zarko nag ba mu jëlee combat ba moom boo bëggee dégg dëgg daal mu nga fa nga xam ne ni moom moo di ci ilu Saalum yi wala boog ci siin ak Saalum daal fa la Zarko teg tànkam ngir di belende boppam maanaam ci wàllum mystique ci ay ñaan ngir bu bés baa bu ca yeggee daal mu mën a nekk mën a jàmmarloog doomi Diène Boy Kairé ji daan ko muy jën Kairé loolu sama ay wax ba tey sunu làmb moo xëy xibaar ñu lu mel ne ki noonu moom Zarko nag ak nga xam ne moom moo di Ada Fass te ku ne xam ne ne bëri nañu Zarko daan ko ñoom ñaar bañ ca jógee ñu aj leen atom yàlla du jànjeeko nag mi jiite amateur yi mu nga xëy di wax ci sunu làmb du jànjeeko daal nee na ñaari mbër yi moom dañ leen a war a gracier te itam yamu ca moom duudu mu ngay ñaan ngir ñu gracier leen jéggal leen keneen koo xam ne nii ba tey ci ñooñu ñu la bokk ba du jànjeeko ñaanal jéggal muy Ada Fass adversaire am baa ngi nii di Zarko yëglikaay bi wala bokk ki nga xam ne ni moom moo di Zos Ada ak Zos léegi ñooy bëri yëglikaay bi nag neen Zos moom na mu nekk ci États-Unis di préparé lanu sunu làmb dikkal waa waaye yemu ca it wax ñu nofel bu méttee métti boo xam ne dal na Zos muy wari muy way juróom bu jigéen bi nga xam ne ni da koo ñàkk moom Zos ñu ko koy jaale di ñaan yàlla jéggal ko te xaree ko aljana loolu ba tey xibaar la boo xam ne ni mu ngi ci biir sunu làmb mu indil ñu bu xam moom nag décroché na combat Batista numéro 2 ak ki nga xam ne ni moom moo di saafaandu yéeg likaay bi nag nee na ginnaaw Baye Mandione ak Bébé Saloum léegi combat boobu boobu dina amaat fa nga xam ne moo di Kaolack waaye itam ginnaaw na diggante Boy moom bi moo di Batista numéro 2 su ma fa jógee léegi damay dem les arènes nag kam nu xëy indil moom les moom moo di le promoteur Ibrahima Diop mi nga xam ne moom moo tëgg Ama Baldé ak Gris Bordeaux yëglikaay bi nag ñëw na ci Ibrahima Diop ak datam yi nga xam ne ni faral na ko di jàpp te dat ya bu demee ba di ko jubat ay yàqu-yàqu am ca wala boog sax mbër ya blessé ndax yéen a ngi fàttaleku garga 2 ak Mama Lamine bañ ne suba lañ koy bëre ba ñaari mbër ya waaj ba pare ku ne gis na la daloon ca kaw Maama Lamine maanaam ba combat ba moom mujj ko mën a bëre si ñu ne ne waay ñu jàppaatoon ab date Gris Bordeaux ak kii di Ama blessé double moteur ak Mama Lamine tamit mu tëggaatoon ko ñu gisaat fa ñu mujjaat double moteur blessé armé ak mbay gu gi tamit loolu lépp di ay mbir yoo xam ne nii yu arrivé Ibrahima Diop la ci biir carrière promoteur bi nga xam ne ni commencé na ko loolu nag les arènes moo xëy tey toppal ñu ko dinu ko jàngatal kenn koo xam ne nii moom moom moo di Jax Jax ku ne xam na ko ci làmb bu baax a baax a baax yëglikaay bi nag nee na date ba nga xam ne moom la ñu jox Ibrahima job muy le 9 juillet mu war ci tëgg ki nga xam ne moom moo di Ama Baldé Gris Bordeaux ah Jax nee na na leer boobu date moom ku ko xalaat wala waa CNC bu dee ñoo def loolu moom Jackson ne leen nañ ko dindi ca ba muy teel ndax nag boobu date jox nañ ma ko bu yàgg ba ma jël ko ba jël sama caution la ca war a def yépp ma joxe ko kon datu le 9 juillet moom kenn du tëgg arène nationale ku dul man man Jackson loolu du sama ay wax Jackson moom moo xëy wax ko ci fi nga xam ne nii moom moo di les seen CNC tamit kaay bi mu ngi nu xëy xamal ne nu daal war ñu photo bira seen ci les arènes maanaam ñu ngay wër six meilleurs U17 yi nga xam ne ñi ñoom ñooy war a nekk national bi ci wàllum bits ba nga xam ne nii daal mooy bits bëri ba maanaam bëri tefes ba loolu yëglikaay bi di les arènes moom moo xëy ñëw dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu. jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay tey li nga xam ne moom la ñu xëy indil may bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm mais tey nag balaa maa sori Mansour faw mu nuyu soppe yi nga xam ne nii dañuy commenter revue bi ah du mën a ñàkk ma ziar leen ñaanal leen jàmm sàkku ko ci ñoom parce que nag maanaam kuy wax kuy déglu moom mooy mbokkam loolu la yàlla dogal. te ñoom vraiment dañuy bàyyi xel saa su nekk lépp lu nga xam ne nii Laye Sané mu ngi koy génne ci ay vidéo hmm, ñu ngi koy topp di ko seetaan di ko commenter ah ma mën ci jëkkee ki nga xam ne nii. Ah, euh, moom moo di euh, Moussa musa Mballo waaw Moussa maa ngi lay bëggee Moussa <laughs> Moussa maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax ah, di nuyu euh, Ndofène moom tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Moussa Sëy yéen maa leen di bëggee Mbaye Diop ah Mbaye maa lay bëggee ah, di nuyu Pape Pape Matar ah waaw waaw maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax a baax di nuyu Modou Sow gars yi du ma leen fàtte yéen ñëpp. Hmm? asfal ñi ñëpp ndeysaan ay soppe lañ ah John family maa ngi leen di béggee bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ak Badou Traoré ah Badou Traoré ah maa ngi lay béggee di nuyu góor gi fay tamit góor gi maa lay béggee bu baax a baax a baax di nuyu waaw waaw kii moom bindul xaw ma lu mu bind nii sax mais maa lay béggee daal waaw waaw maa ngi lay béggee bu baax a baax a baax parce que ñii revue bi dañ koy topp Mansour di ko seetaan moo tax dafay jaadu nga di leen nuyu di leen siyaar waaw léegi nag su ma jógee foofu ma dem ci yëglikaay yi par rapport ak làmb nga xam ne moom la ñu tey ci une bi Balla Gaye numéro 2 la Lion de Guédiawaye yi tax man ta war warta ñàkk combat am la 30 juillet mook Eumeu Sène loolu la sunu làmb ñëw duñ ko wax waaw combat boobu nag xam naa ne euh, Balla Gaye Eumeu Sène moom buñ ne laa ko ama ba amaat na la 30 lañ ko war a bëri incha allah bi la tax Balla waru koo ñàkk sunu làmb ñëw na ci waaye bëri na yu tax waru ko ñàkk wuti ñàkk nag du ñàkk fu la déedéet te du ñàkk gëm sa bopp day fekk ne kay da ngay ñëw ci bés yàlla ànd ak yow nga ñëw ci beneen bés yàlla weddi ànd ak ka ko neex parce que ñëpp ay jaam lañu ñu moo ko yëpp dañuy sabab lu si waaye nag bu ñëwee ci cadre sport bi Balla ku ne xam ne ëmma daan na ko deux fois yaa ngi dégg kon defe naa tey bëgg na nag loolu mu dakkal ko te ci combat bi la ko mën a dakkale ku ne xam na ne Balla itam defet bi mu mujj a am mu métti lool Pikine la ko jëlee booy Niang moo ko daan di rek Eumeu Sène yaa ngi dégg ak yeneen yoo xam ne nii tey Balla nekk na benn produit boo xam ne ci làmb ñëpp ànd nañ nekk nekk na produit boo xam ne tey ci làmb maanaam làmb da soxla ba tey kon te li koy may nag xëy na mu ma gën a mu gën a mën a des ci làmb wala nekkinam ci làmb gën a mën a neex bokk na ci combat bi mu gañe ko waaw donte nag du yomb ndax ama seen itam li mu wax kere leer na maanaam daan Balla Gaye ñetti yoon nee na loolu bu amee histoire làmb da koy bind ndax di nga def loo xam ne kenn mësu ko def te moom loolu la bëgg def kon combat la boo xam ne yàlla nañ ko fekkee te tal ko waaye du yomb waaye ñoom ñaar loo ci mën a dégg tey dama naan wax dëgg yàlla da bu doon euh, lu ñu war a def la dama naan presque di léegi ñu matal de ndax ku ci ne dégg nga roi des arènes te kuy bëree loolu nga soxla te ku ci ne sa carrière metti na nga jéngu ko di ko ñàkkante ba doon ki nga doon tey muy balla muy ëmma ñaari mbër waada lañu kon yaakaar naa la 30 juillet incha allah yàlla nañ ko fekk te tal ko lu fa am rek ñu xam ne sport moom moo ñëw wane boppam waaw. ba tey su ma continuer damay ñëw par rapport ak euh, lu jëm ci mbirum Diéne Kaïré ak ki nga xam ne moom moo di euh, Zarko ah yëglekaay bi nag nee na Zarko de mu ngi ci euh, Sine Sine daal fa la wala boog fa aw. ci côté mystique bi ñaan lu bi ndax loolu day moog làmb ànd làmb moom dafa ànd ak ay bagage parce que làmb suñ cosaan la il faut nga wuti ay muslaay ak yu mel ni ki noonu waaw waaye nag bu bés ba jotee moom ak loo muslaay muslaay ak loo ñaan ñaanlu ñaanlu faw nga entraîné ji wuti doole ndax bu bés ba jotee itam loolu moo la cay mën a génne doole ju ànd ak bëre ju ànd ak fit ju ànd ak sañ-sañ ju ànd ak xeex kon combat boobu ñu ngi koy xaar yàlla nañ ko fekkee tal ko saison prochaine du jànjee ko président des amateurs ñu koy nuyu bu baax di ko ziar di ko ñaanal jàmm xëy na di ñaanal tamit ki nga xam ne mooy euh, Zarko ak Ada Fass pour aj bi leen seen see ajoon at ci seen combat bi passé mu gracier leen loolu la xëy di ko demandé waaw loolu nag it ñun ñëpp ñu ngi koy demandé maa ngi koy ñaan sérieusement par là na leen seen see jéggal waaw na leen jéggal ah pourquoi pas war na mën a nekk waaw donte nag nag tamit terewul nit ki war nga ay sart bu ñu la joxee Euh, boo yëngutu ci mbir ñu ñu wax la sart yi nga xam ne moo ca aju nga fexe di jéem a matale sart ya yaa ngi dégg donte nag yombul parce loolu moom ab jàmm moom mel noonu nit daa matul euh, keneen koo xam ne ni mu ngi ci biir yëglikaay bi war a bëreek Ada Fass muy Zos na ne ñu préparé États-Unis yëpp yëglikaay bi ñëw na won ñu ko waaye Zos it daa am lu metti lu ko dal te li dal Zos bu mettee day dal waa làmb yëpp muy woy juróom bu jigéen bi nga xam ne ñàkk na ko ñu ko koy jaale di ñaan suñu yaay jooru yàlla na ko yàlla jégal te xare ko aljana muy meer bu baax parce que man dem naa ca kër ga jëli garga yoon fekk ko moom yaay booy moomu yàlla na ko yàlla jégal te xare ko aljana waaw di ko jaale zos di ko jaale garga di ko jaal famille bi yëpp mais di ko jaal seen xarit bu ñuy wax xalifa xaritu garga la waaw xalifa maa ngi la koy jaale maire bi di ko jaal famille ba yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di ko jaal tamit ahlu làmb di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla jégal xare ko aljana Ibou Bambara moom décroché na benn combat boo xam ne nii ci Kaolack la war a amee yëglikaay bi nag nee na boo bëggee dégg dëgg daal Batista numéro 2 ak Saafandu daal Ibou Bambara léegi décroché na ko loolu moom lam la joo xam ne ju war a mën a la ndax ki nga xam ne moom mooy Batista numéro 2 moom xale la boo xam ne day wane boppam fii ci Ndakaaru waaye tamit ci Saalum xam nañ ko fa bu baax a baax a baax a baax min na foofu ci mbappat min na fa ci lambi dóor waaw kon amaat na fa combat keneen koo xam ne nii wala beneen feneen foo xam ne dañ cay dem muy beneen yëglikaay muy les arènes les Ibrahima Diop lañ fee fekk ñu koy nuyu di ko ziar borom Kajoor production Ibrahima nag bon par rapport ak euh, combat yi nga xam ne nii date yi nga xam ne ak da koy am muy yàqu wala boog buñ ca yeggee après mu am ay jafe-jafe yu ca am wala blessure yi mbër am loolu lanu sunu lanu les te toppal tey ku ne xam na ne Ibrahima moo tëggoon a Lamine Garga 2 ginnaaw bi ko waa Equivox su tëggee te ye wala waa Vox Arena tëggee te yeggul moom moo ko jëlaatoon tëgg ko mais malheureusement bañ ne suba la ñaari mbër yi bëri ci guddi kooku defe naa ne ku ne yëg na le amoon jàmm a gën par rapport ak Seexu Mama Lamine bi nga xam ne moom moo jote woon ak benn supporteru Mama Lamine ba yàlla dogal bakkanu supporter booba desoon ca ba yàlla dogal gis nga la ci am te loolu ànd ku ne xam ne ne keroog maama Lamine mënu ko ne bëri si mu ñàkk combat bu moom Ibrahima noona ah ndax Garga 2 moo ñëwoon ah ñu constaté ñëw na adversaire am ñëwul ñu jox Garga 2 victoire ngi dégg parce que à l' absence de maama bi nga xam ne bëri wu kon hmm, mu mel ni ki loolu itam moo continuer ci Ibrahima Diop ci ay combat Gris 2 Gris Bordeaux Ama Baldé ñu ngi ko doon xaar gis nga la ci mujj am euh, double moteur ak maama Lamine tamit gis nga fi muy mbay gu gi kii donte nag mbay gu gi jàppaat na date bi léegi waaw moo ko armée mais loolu lépp li muy wane rek mooy yàlla mooy dogal nit moom du dogal Ibrahima Diop ab jaam la buy sabablu yàlla di ko wan ne ko maa fi nekk di ko teg comme ni muy teg yeneen moroom yi jaam rek moom itamit muñ ko ndax ndax dégguñu wax dëgg yàlla depuis lors foo xam ne nii wax na fa ñaxtu fa depuis lors te loolu ku ne xam ne ne euh, comme ay ay millions yu bare cay dugg waaye nag mu ngi toog jàpp njaamuram di def li mu war a def ba yàlla dogal na gis nga ni jàppaat na ak mbay gu gi jàppaat nañ tamit Gris Bordeaux ak amaa ñu ko ñaanal yàlla rek yàlla na ko réussir euh, bu ñu jógee ci loolu continuer ñëw ba tey ci wàllum euh, Jax ak euh, Ibrahima Diop wala boog Jax ak CNC sax lañ mën a wax ndax boo xoolee le 9 juillet ci lañ bëgg tëgg ci lañ war a tëgg Ama Baldé ak Gris Bordeaux tey 9 juillet boobu Jax moom régularisé seen ci combat Cheikh Tidiane Niang waaw te régulariser ko bu yàgg eh, wala boog dugal na xaalis bu yàgg la nga xam ne moo koy may pour mu tëgg ba CNC nangul ko loola kon defe naa itam foofu xaw ma nag erreur bi fu mu war a nekkee kon CNC xoolaat leen loolu parce que itam du gën ay promoteur yoo xam ne muy Jax ak Ibrahima jóg ñoom ñëpp dañu ñëw pour lay suqali làmb benn dat war leen mën a boole ka nga xam ne moom moo moom date ba ñu joxoon ko ko ah ci lu leer nañu ko bàyyi mu maintenir ab datam ki nga xam ne am moomu kon ko ñu tal ko beneen date defe naa loolu moo jaadu parce que ñoom ñaar ñëpp ay sénégalais lañu ay frères lañu te pour lamb bu jëm kanam rek moo leen intéressé seen say tamit defe naa bu fi nekkee di encadré pour lamb bu jëm kanam moo koy intéressé pour man waaw président Bira mu ngi nii ci biir les ba tey ñu gis ko fi mu toog tiim ordinateur monsieur le président ah mu nekk nag ñoom fi mu nekk nii ñu ci U17 yi daal la ñuy wër six maires yi daal la ñuy seet fi mu nekk nii les arènes moom moo xëy indil ñu xibaaru wàllum làmb ji yi lay doon doon ak yu mel ni ki noonu loolu moo fi dikkoon tey ci yëglekaay yi di balu ñuy paax di bal ñuy den wax ne nag ah ku ne xam ne ne actuellement moom fi mu nekk nii waxi korité la ñuy wax ñu ngi ñaan yàlla daal boroom kër yi korité bi ñu jëm yàlla nañ ci dugg bismillah rahmaan rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin tey ñu fekk ko te tal ko te ñëpp ñi ci dara war yàlla nañ ko mën a motal yàlla dimbali leen ba seeni i dépense ñu motal ko doon tey nag ku ne xam ne ne jamono neexul waaye nag yàlla moom fekkee na lépp tey itam nag incha allah rabbi am na yàqin ne ñëpp dinañu am lu ñu mën a korité ñu ngi koy am nañ ci yaakaar parce que yàlla nu moom moonu sax te moonuy may kon ñu ngi koy ñaan yàlla na motali ñëpp seen i dépense ba lépp ñu mën ko réussir incha allah rabbi mais tamit di wax ne Korité boobu association des jeunes pour le développement de ak yaay ku ne xam na ne dañu am benn 48 euh, heures boo xam ne dañ koy amal après Korité bi ci village ba 48 heures yooyu nag lépp luy jëm ci wàllum culture sport développement hmm, ak lépp loo xam ne daal dina tax nit ki gën a xam boppam wér-gu-yaram gën a yokku ak luy tax ab dëkkam mën a avancer jëm ca kanam dañ ko cay waxtaane ci 48 heures yooyu euh, ren nam ren tamit dañ koy amalaat incha allahu rabbi bu nu woree ba bët set waaw si jour Korité ba sax ca guddi ga lañ koy commencé ak ay programme yoo xam ne culture lay doon yaa dégg dina am ay ay guitare ak ngelag ngelak yëpp dina ci am ma ay match de football dina ci am man mi nag ci match de football booba match de football ba nga xam moo ci am nag man man mii di Babacar man lañ ko paree parrainé kon sama soppe maa ngi leen koy wax di remercier jeunes yi dëkk ak yaay yëpp di remercier seen président Abdou Aziz Diouf ak ñi mu nekkal ci bureau bi ñoom euh, Serigne Sène Djibi Sène Pogba ah borom Teranga production ak euh, maam góor Ibrahima Diom suma rak ak yeneen jeunes yi nga xam ne Abdou Aziz Fall ñoom ñu ne ci bureau boobu yëpp maa ngi leen di bëgg di leen ñaanal jàmm di wax ne ñi ngeen parrainé bis yi foofu tamit vraiment kontaan nañ ci muy ay jeunes yoo xam ne ak yaay lañ dëkk parce que ñun ak yaay jëm ca kanam rek moo ñu intéressé kon gars yi ba suba incha allahu rabbi